asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jurit yi mbokki taalibe yi ba tey noo ngi fii ci Daaru Muxti ci màggalu borom Daaru Muxti gi muy bis bi nga xam ne bisu mbégte la di bis bi nga xam ne ci la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul daje wan ak maam Thierno ginnaaw bu mu ko dénkee ndénkaan lu am solo loolu nga xam ne daa demee liggéey li boromam ñu ngi fi kër Serigne Serigne Mbacke moom Serigne Moustapha May ñu fas yéene ànd ak moom rek ci bis bu tedd bi nga xam ne mooy bisu mbégte bi di bis bi nga xam ne mooy nesu Saabaan ñu di ko màggal fii ci Daarul Muxti bi nu ñëwee tàllal nañ sëriñ bi sunu micro mu dénkante ak ñun kàddu yi ci bis bi nga xam ne bisu mbégte la waaye bis la boo xam ne bisu maam Thierno Ibrahima Faati la ndaamal Daarul Muxti. di delloo siyaar baax di siyaaree sëñ Abdou Samad mi nga xam ne moo leen fi yebal xam li mu daan ci bis bi lépp ñu di koy delloo mi daanaka mooy wax ji bis la boo xamante ne nii bisi mbégte la ndax bi bu borom daaru Muxti jógee dañ ko ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ci lañ ko njëkkoon di màggal ñu ko màggale ab diir suñ fan lu ñëw ci la ne nañ ko toxal ci bis bii nga xam ne bisi mbégte la woon daal di wax ne waa daaru Muxti jàpp bu leen jàpp ni yéen a ko moom ndax kenn ku nekk lu bari xam na nisfu saabaan li mu symbolise ci ci lislaam ak li mu symbolise yoonu murit ci ay gëstu yoo xamante ne nii leer na ci bopp ñu baree bari waaye li ñu ci yitteel rek moo ñu tax a jóg mooy Sëñ Fall daa waxoon ne ñaari xarit yoo xamante ne nii seenu xaritoo dëgg la ñu amee juróom-ñaari gisewuñ bis ba njëkk a gise kenn ko ne xam ne ne mbir dana fa feeñ mu ne rawatina na ñoom ñaar kim moom yëf yi ak kim ko dénkoon kon nag bu yemee juróom-ñaari bis bañ fa bis bi biñ biñ dajee mbég feeñ na fa moo xam ne mën naa defar adduna yëpp waaw moo tax ma ne kon nañ ko indi ci biss boobu ndax ñëpp mën cee jariñu ñëpp man cee eh, am ci xéwal yooyu ndax mbégum adduna ak mbégum àllaaxira mën na cee xew kon nag bisub sant yàlla la ndax ci taarix kenn musta gis ko say noon jàpp te teg koob xare yàlla musal la ca ba nga delsi toog yeneen la neen Sëñ Tuubaa lañ ko njëkk a gisee noon ñu jéem lay fexeel te amoo benn défendre lu lay défendre du armée du mbokk du dara ñu jéem a jéem ba tële la loolu Sëñ Tuubaa lañ ko njëkk a gise moom mi ñu fi bàyyi woon it lu lu lu mburu daju tëtaal ba daj na ko waaw te ñim fi bàyyi woon muy tubaab yi ay leetar leetar jot na ko tasaareel njaboot gi baatu yoon mu bëgg duñ koo dégg waaw waaye benn leetar boo xam ne bu ko jàngee ba noppi dana ca tontu sax amut bu set mi ngi ci li ko Sëñ Tuubaa loolu liñ ci mën dégg ñu it mooy murit moom fu ndigal rek da ko war a jëfe waaw si kar si muy tërbiyee nit ku mat a jàng mu jàngal la ku def def lenn mu defal la ba sëñ bi delsi ba sëñ bi bi ñëwee ak cant mënta weesu mooy ndax Thierno su fekkoon fekkonte ne yaa dem ma toog ndax nii nga téye mbir mi daa ko mën a noonu xam nga loolu moom mën a yem kenn ku nekk xam na ne suñ ceer Thierno man suñ tubaab ko man waaw waaye nag bu ko waxee loolu mooy fa day te daytalu cant yam egg na ak moom kon nag loolu ñu ngi eh, yéene ñëpp ñaan ñëpp ñëw ci xéewal yi ci suñ borom di sotti ci seen ñaari mbég yooyu moo tasaaroo ci réew mi te réew mi it soxla na ko Mm, sa mbégte moome wala ngaan ba tiitaange yi am ci réew mi sun borom na saxal ko ba jàmm rek xew ci réew mi ñu ngi sant sëñ Abdou Samad di ko siyaar baax di siyaare njabootu sëñ Tuubaa gépp di siyaare mbokki mbër yëpp di ñaan képp koo xamante ne ni jóg nga bu ñëw tànk say say ñëw sooy dellu mu doon tànki njëggal doon tànk yokku taali bi suñu diggante ak sëriñ bi doon tànki xéewal ki amoon yéene ñëw te mënoo ñëw it nga duggaale ci ñaan kooku salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bi Sëriñ Tuubaa defaree bokkam defaraw jàmbur defar bool ak kajoor ak ne ko ñu doon foloog ñu doon roome daara amuñu woon ku mel ni doomi jaara ne ko nag euh, sëriñ Mamar jaara magam ju baax ja bàmbaa ko seexal dellu defal ko xaadir defar na mbakk sanc saam tooñ mesra taaw yaa ngi yor njëndee me naaloo bisira Cheikh Ibra Faati mii doy na xalifa bàmbaa ko seexal moroomam déefa su bàmba doon Musaa ceerno dim aarona yoon wa ceerno ago seexa aw soreel jërëgeen